jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci arène nationale dalal kenn koo xamante ni mooy président des écoles de lutte et des écuries du Sénégal muy Malick Gningue tey président lañ dalal ngir waxtaan ak moom ci làmb ak écurie yi ak mbapat bi nga xamante ni barki démb organiser nañ ko fële ca euh, nu mu tuddati fële ca Kër masaar um, yàlla def jaam ak pexem yàlla ak dogalam ba am lo natt boo xamante ne dal na fa ci dëkkandoo yi ba tax journée boobu mu mujjewul am waral ko tey ñu waxtaan ak moom dalal ko ngir waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne dafa yokk làmb ak da koy defal président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Jili euh, di la wax ne la maa ngi nuyu waa wasaare làmb yëpp di leen xamal na leen que. Euh, daal euh, association école ak écurie de lutte kontaan nañ ci yéen d'ailleurs même maa ngi doon waxtaan naan daal war nañoo mën a fexe nu nga xamante ni ñii dañuy lëkkaloo pour que euh, wasaare làmb moom doon télévision bi nga xamante ni bii ëllëg ci ñi ñuy gën a liggéeyal ou bien ki ñuy liggéeyal sax moom lay doon. donc maa ngi nuyu le directeur bi nga xamante ni bii moo ko moom di la nuyu yow jili di nuyu aussi sa caméraman bi di bassiru Diouf te bokk ci ñun waaw. président seen liggéey nu muy doxee. sunuy liggéey ni muy doxee moom mooy que euh, dañu regrouper les écoles ak écuries de lutte yi nga xamante ni bëgg nañoo bokk sunu association. et yàlla def nag man maay président bi euh, te ku wax président rek man ci ni ma ko gisee moom mooy yow yaa mujj parce que li ñëpp wax bëgg ko ci nga war a dox pour véritablement euh, faire passer le message de tout le monde waaw donc sunu liggéey nag. moom mooy développer làmb euh, culturel culturellement et économiquement maanaam euh, Sénégal li nga xamante ni lii moom la am muy làmb ci sport bu nga xamante ni bii moom moo ko moomal boppam mu doon lu nga xamante ni lii véritablement dañ koy jël ñëpp sa képp kuy sénégalais mën ko appropri approprié wu maanaam jël ko muy sa yëfi bopp mais itam wasaare ko ci biir àdduna ba nga xamante ni bii ëllëg. nit ñi euh, ci yeneen dëkk yi bu ñu xamul woon làmb gën koo xam parce que dégg naa ne nag Poutine ci boppam moom day seetaan làmb waaw. président nga njaboote école de lutte ak écrit yëpp yi ne Sénégal yomb na. Euh, yomb na yombul dans la mesure où am na ñu nga xamante ni ñii ba léegi yaakaar nañ ne li ñu yore du dem mais ñoo ngi teg ay pas ñoo ngi liggéey. et que soo xoolee ba ci biir aussi boo demee fu mel ne par exemple CNG aujourd'hui ñoo nga fa nekk représenter les écoles ak écuries de lutte bi ñuy doog a ñëw aussi am na ci lu nga xamante ni lii commencé woon nañ ko yombul parce que xam nga monde de la lutte moom dafa di lu nga xamante ni lii euh, léeg-léeg euh, si bi nga baal ma ci wax bi dafay faral di daf ciy faral di am mais tout est-il am na ci ñu nga xamante ni ñii ñoom li leen soxlaal li leen soxal moom mooy naka la ñu war a mën a def ba jëli ji ay nit sax dugal leen ci biir pour ñu développer la loolu man j'en fais partie parce que bi may doog a dugg vraiment ci écurie ku ci mel ne Paala Diop Burkhane Wade at euh, Vieux Ndiaye bi nga xamante ni bi moo yore woon xale xam sa cosaan ñoom ñoo ma woo si at délégué de quartier bi ne ma daal bëggoon nañ pour ko nga ñëw jàpp ci bi ma ñëwee itam yàlla def juste euh, du ma ko bàyyi di wax ku naan Ablaye Matar Diop ñëwoon créer véritablement benn réunion bu nga xamante ni bii dañ ko defoon fële ca Léopold Sédar Senghor jour boobu on avait des problèmes pour prendre qui parler maanaam kan moo war wax ci biir loolu aussi nit ñi ne ah bu ñu ci lii daal war nañu mën a fexe ba nga xamante ni bii dañuy àndandoo nekk benn booloo teg dara ci la ñuy jëlee le Mbaye Gueye premier tigre de Fass def ko sunu président bi ko yoree pendant des années ba l'année dernière plus précisément le 5 janvier 2019 ci lan ma fale mooy président bi ba tey ji ñuy dox di dem ba tey dugg nag ci nos premiers pas vers le développement vraiment de ARELS. président yow am nga écrit boo xamante ne yow yaa ko yoral sa bopp. waaw moom laa la doon wax léegi man bi may ñëw écrit xam sa cosaan moom lan ma joxoon bin ma ko joxe itam teguma ci ñaari at rek loolu ñu naan làmb do taguma ci euh, quelques années ma jël làmb door j'avais commencé avec de jeunes lutteurs yu ma doon déggal mais xale yitam itam dañ koy wax bis bu ñu demee ba xaw a dégg sax daali rek dan lay échappé ci làmb ji mais man dama yore écurie bu naan xam sa cosaan te Onde le di sunu tête de liste waaw. président barki démb am na tournoi bu ngeen organisé woon muy làmb ma mbapat surtout lu ñu mësul gis ci réew mi ngeen organiser ko ba pare def ko diggante huit heures neuf heures far yàlla dogalul loolu am nan nga ma ci mën a expliquer. waaw foofu dañu bëggoon a wan waa senegal rek euh, en tout cas man dama digg dama dama dëkk ci diggante ñaari euh, mbër su ma leen tuddee Sénégal yëpp xam nañ leen muy Fallaye Balde at Pape Diop Boston mais man ñun mbapat yi ñu daan seetaan masul am fay dañuy ñëw rek taal làmp nit ñi bëre mais ñu am ku mel ku ku naan ku naan Modou Fall moom moo yore écurie jëf soog a nekk depuis près de trois ans ou quatre ans wala plus de ça sax nit ñi dañoo cotiser woon pour aller vers jënd licence organiser ay ay ay un gala de lutte mais avec frappe il s'est trouvé que bi ñu toogee nit ñi gis ne la lutte avec frappe am na lu muy laaj ay moyens yu bari moom lay laaj léegi pourquoi mënuñu fexe ñu def li nga xamante ni lii moom mooy mbapat tour pour que xale yi nga xamante ni yii dañu yore benn age bi maanaam ay xale lañu entre dix huit et vingt quatre ans au moins ñu dajale leen ñoom ñu bëre seen biir euh, après ils se deviendront les plus les les plus futurs champions. parce que soo xoolee ba ci biir ah bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul tey dama lay mën naa laaj waa Sénégal boo génnee par exemple les Ama Baldé les Modou les Balla Gaye et les autres. pour ne citer que cela même euh, Eumeu Sène Boy Niang nga jël tey les Gris 2 euh, Gris Bordeaux nga jël par exemple Bombardier et l'autre la nun koy waxatee waaye mbaru Bawol bi euh, Tapha Tine ay Lac 2 mais ci suuf lan moo fa nekk dara nekkatu fa donc nag ñun ci loolu moom la ñu bëgg a jël vraiment suuxat ci pour préparer de futurs champion comme ni ko defee woon ci suñu écurie loolu nag dafa laaj liggéey moom moo tax ci biir loolu ñu am nag kenn ci sunu biir kenn ku nga xamante ni kii yàlla def na ne xarañ na trop muy Modou booy di Modou Fall yore écurie jëf soog a nekk dañuy wax rek mu ne ñu daal man dama bëggoon a jëkk a jël tour moom moo indi turu mbapat tour donc dañ koy def ci euh, maanaam gox yëpp tey moom moo aaye euh, woon malheureusement li yàlla def ñu dem ba ci biir bi ñuy waaj a commencé am ku décédé foofu nelaw de maanaam. Euh, ñu ne daal du ñu ko continuer di ko def bu nu paree bàyyi kook moom coow li looloo tax ñu mujj arrêté tout euh, mbapat boobu mais incha allahu rabbi mu ngi jëm pour tëgg ko le 8 février incha allahu rabbi ci même lieu même place mais li ci am solo moom mooy euh, li mu def parce que dañ daan def mbapat nit ñi entouré ko takk ay bâche ku nga xamante ni kii ñëw nga dangay ngay dagg billet ñun loolu amul ci ñun ñun li ñu bëgg daal moom mooy plein air lay doon ñu defar suñuy bâche teg suñuy chaise ku ñëw rek incha allahu rabbi foo mënti jógee nga bokk ci loolu. looloo tax sax damay wax ne euh, que même waa CNG li ci gën a neex moom mooy que tey c'est les président d'écurie at les responsables des écoles ak écurie de lutte ñoom ñooy doon seen lépp maanaam la sécurité et même l'organisation vraiment de ce de de de ces mbapat tour pour montrer que lamb fo la c'est vrai ku daanu. Euh, rus waaye nag nit ki war na mën a daanu aussi bëgg wane ne ñun ñooy mayante xaalis comme ñun ñooy mayante xaalis ku ñu daan aussi am na ci côté bu nga xamante ne bii gañe nga ci xaalis mais keneen ki ñu daan aussi gañe na ci xaalis et que président yi tey jii dañ koy wax ne man tey am naa fitu jël beneen président ne ko kaay arbitré sunu làmb loolu nag xam nga ne amatul woon ci biir làmb ji. Mbapat Tour boobu écrit bu nekk ñaata représentant lay am. waaw écurie bu nekk da ngay indi ñeenti représentant mais dañu waxoon ne doo dépasser léger yi dafay doon jusqu'à soixante cinq kilos soixante quinze kilos et euh, kii bi nu koy waxatee waay euh, lourd bi dafay dem ba quatre cinq kilos mais am nañ ci un peu de problème dans la mesure où ci. Euh, lourd yi at léger yi xale yi léegi dañoo gaaw a atteindre vraiment euh, soixante euh, soixante quinze kilos yi. sax dañ doon am problème véritablement pour mën def un recrutement waaw. léegi loolu lan moo koy waral ak loolu léegi ku ci ëppale ci poids bi nan ngeen koy gérer. waaw xam nga dañuy fixer ay poids boo ko fixer nag moom ku ko ku ko ku ko mat bëre ko ku ko ku ko ëppal doo ko bëre. ñun moom vraiment nag on a un groupe bu nga xamante ni bi man mi di wax ak yow damaa jiitu rek mais. au juste li ma jiitu lépp ah bu gars yi ñëwee li ñu wax ñoom ci loolu moom la ñuy ànd de boo xoolee ba ci biir sax man lin ma teg keroog teguñu ko fa kenn man lañ gën a surveiller ci maanaam euh, mbër yi keroog boo xoolee ba ci biir sax man bu nu doon bëre tey ñetti mbër moom laa waroon a am au lieu de au lieu de quatre parce que ñi ma indi danoo dépassé woon véritablement les numéro ci kilos yi nga xamante ni moom la ñu waxoon muy soixante-quinze kon journée bii di ñëw dañ koy organiser woon fi mu amoon ba yàlla dogal dese am fa amul woon foofu lañ koy organiser waat. waaw foofu moom la ñuy demaat parce que Modou Boy quand même euh, jot na nag ñu laa ñu ñu ñu sargal ko tëggaat ko foofu parce que keroog xam naa ne bu fekkoonte ni bii defoon nañ ko. Euh, lamb ju rey moom ngay gis làmb ju neex moom ngay gis parce que xale yi commencé woon nañ gis ne kat président yi ñi ngi ne toog nekk toogandoo àndandoo nekk benn pourquoi pas ñun mbër yi. du ñu àndandoo nekk benn bëre ci fulla nag amul maye de ku daan xam ne yaa daan ku nu daan nga xam ne daan laa daan nga yëkkati sa nga nga nga jël yëkkati sa loxo morom et ñu avancer quoi Sénégal jëm kanam làmb ji aussi jël jëm kanam. lu waral huit heures neuf ci suba te làmb d'habitude dañ ko daan gis nga def ko ñu def ko dix-sept heures jëm guddi wala mu doon ay vingt-deux heures fanaan ba cinq heures du matin mais yéen ngeen jël diggante huit heures neuf def ko ci. pour que ñëpp mën a seetaan. boo ko defee guddi am na ñu nga xamante ni ñii du ñu gis du ñu xam mais boo ko defee bëccëgu nar a kaam loolu moom mooy permettre à ce que ñu vulgariser arel se aussi nouvelle démarche bi nga xamante ni bii ñun bëgg nañ ko jël ci biir làmb moo tax ñu ne bëccëgu ndar a kàmb ku bëgg lu leer wax fa dëgganteeg yàlla da ngay dox bëccëg waaw. président euh, làmb mu ngi dox fi mu toll nii actuellement. làmb mi ngi dox am na côté bu nga xamante ni bii mi ngi ciy sooxe. parce que tey bu ñu demee ba mois de janvier amaguñu benn combat bu mag te janvier ci boppam daaw boo xoolee ba ci biir euh, yàlla defoon na ne amoon nañ au moins benn combat bu mag ren ji amuñu ko ça veut dire que làmb am na côté bu nga xamante ne bii sooxe na fa waaw. ndax d'habitude dañuy jékki-jékki dégg ni am na promoteur bu bees bu dugg ci làmb euh, am na laata làmb saison bi di ubbi dégg nañ fi ay. promoteur yu bari ñu ne promoteur bu bees mu ngi ñëw promoteur bu bees mu ngi ñëw te d'habitude saison bu daan ubbi avant muy ubbi dañ daan dégg combat yu mag taxaw na ñu dem ba moment bi combat giri Bordeaux gisuñu ko bala Gaye 2 ñu ngi laam-laamee euh, ku ci mel ni ñoo ñooñu année blanche lañ gën a jege waaye nanguwuñu ko est-ce que jàpp nga ni pour moment bi ñu toll promoteur dina fi tëgg combat jàpp date mois de juillet. mën nañ ko te yaakaar naa ne ñu ngi ci. mais nag il faut voir ko aussi li nga wax léegi moo ci am solo euh, làmb da nga koy xam def ko ñun mënoon nanoo dem jënd ji par exemple licence lutte avec frappe mais defuñu ko dañu jënd licence lutte simple bu nga xamante ni bii dañuy commencé ci lu tuuti jàng ba bis bu nga xamante ni bii vraiment dañuy war a mën a def nag làmb ju rëy ñu mën ko def tey Moustapha Diop bër bërki démb bi ma ko dégloo moom mooy que ni dafa duggoon peut-être ci lu nga xamante ni lii est-ce que xamoon na ko at ñeneen ñi nga xamante ni ñii yëpp dañ cee duggee noonu làmb ku ci duggee neen génn ci neen parce que la ca nekk yëpp xamuloo ko la nga ca war a def yëpp xamuloo ko da nga ci taxaw def ci gëstu def ci waxtaan ba nga xamante ni bii li nga bëgg da nga ko ciy am tey sponsor yi daw nañ mais loolu sax pose problème aujourd'hui comme j'ai dit vraiment à bërki démb suñu réunion bëgguma di dévoiler mais nee naa leen il faut que ñu xool neneen nu ñuy doxalee parce que tey le CNG dafa am lu bëri lu nga xamante ni lii aussi il faut que par maintenant du waratul a xaar mais dafa war a dem vers véritablement euh, l'organisation de du monde de la lutte ma jox la benn exemple bërki démb Euh, bi nga xamante ni bii couverture maladie universelle soxla na véritablement pour vulgariser seen liggéey fan la ñu jaar ci làmb ji moom la ñu jaar par l'intermédiaire de Tafa Gueye que je félicite au passage mais lan lañ ci am lan la ci làmb am à part jël ñu ay jël ay carte rek jox ñu tey peut-être ñooñu bu ñu sponsorisé woon état bi jàppale ñu aussi dinañu mën a vraiment am lu bëree baree baree bëri mais làmb bu nu waxantee dëgg rek te yàlla tax mi ngi dox mais sooxe na aussi. est-ce que moment bi pour euh, CNG de lutte bi war nañu mën a daw ba làmb ji saison bu ubbi ba ñu dawal ay un mois deux mois ñu jékki-jékki changé texte si na promoteur buy tëggati làmb da ngay joxe caution un million CNG boo dat bi nga bi ñu la jàppal bu dee weesu nga ko un million caution boobu da koy mujjee ñàkk. léegi dama lay man kooku damay laaj sénégalais yëpp benn question. benn nit bu nga xamante ni bii fukki nit soxla benn date. Hmm. ñu jël kenn jox ko ko ne ko yow yaa koy tëgg. mu dem ba ci biir joxewul dara cautionné wul dara ñu dem ñu dem mujj gi moom gis na ne mënatu ko mu bàyyi kan mooy perte. mbër mi. at kan. CNG at kan. amateur yi. ma ngoog donc kay yow yow bàyyi fa dara hmm. bu fekkente ni bi bàyyi nga fa dara ñu dem ba ci biir mënatuloo tëgg nga xam ne yow am na au moins lenn lu nga xamante ni kii doo fa bàyyi nag sa un million hmm. naan tëggatuma. xam nga euh, lamb. million bi ban moment nga ko fay bàyyi boo tëyee da ngaa tëgg combat janvier nga taxawal combat mu war a dem juillet comme da nga fay bàyyi un million bi mu tëdd fa ba juillet di la. parce que yow yaa jàpp yow yaa jàpp juillet kenn forcé wu la pour que nga jàpp juillet kenn waxu la ne danga nga ko war a def pour suba. Hmm. dégguloo li ma la dama la laaj léegi benn question nga ni ma ne kan mooy perte hmm. nga ni ma le monde de la lutte en en grosso modo hmm. mais imaginez est-ce que le monde de su fekkente ni bi par exemple nit nee na ñëw na ñuy fukki nit ñoom ñëpp ñu jàppandoo benn date ñu dem ba ci biir waa ji ne mankat kat mënatuma te CNG dafa wax cas de force majeure rek moo war a mën a tax làmb ji bañ a war a mën a am mais bu dee yow da ñëw ñu laaj la un million nga jëloon décision pour pour tëgg làmb mais <laughs> da ko tëgg da nga ko tëgg c'est-à-dire euh, waa bëgguma un peu. Euh, mel ne damay ñàkk faral promoteurs yi parce que je sais que sant ñoom tëgg làmb dina difficile trop mais aussi il faut que ñu ñu ñu aar vraiment li nga xamante ni li tey jii moom mooy làmb ji te pour ñu aar ko nag gaa ñi attention de léeg-léeg da ngay gis ku mel ne man yorewu ma dara de mais ci kaw mbër yi ci laay bëgg def sama lépp. ci loolu nag laa buggoon ñu wax ci dafa mel ni da nga sama planche mooy est-ce que war nañoo jël licence. bu làmb promoteur di ko jox ku nekk rek ku dugg si ci làmb rek ne licence laa bëgg rek ñu jox est-ce que duñu xoolaat ni ñuy joxaatee licence yi. non xam nga licence bi pour man c'est pas c'est pas aussi important euh, li ëpp solo moom mooy war nañu mën a teg par exemple comme ni nga ko waxee léegi benn cadre nekkat kat promoteur bu jënd licence ci at bi il faut nga organiser gala ne serait-ce que ñu fixer nombre bi. nga xamante ni bii nit ki du mën a defati lu nga xamante ni lii lu ko neex lay doon par exemple euh, bu nelee kat nag yow di nga di nga tëgg làmb ñu ne la deux la wala trois wala quatre gala la quatre gala yooyu bu fekkente ni bii mën nga ko def parce que làmb bis boo ko tëgg mu amee ni ça dépend ci ñi ngay jëli ji saa dépend ci ni nga koy organiser saa dépend ci ni ni ngay seeti ji mais léegi nag mënuñu la jaay licence effectivement yow nga toog atum lëmm. loo làmb pour lan taxaw rek sama waay saa yoo bëggee dugg stade dugg stade wane wu taxaw non. man promoteur laa. te ba pare ne promoteur nga. léeg-léeg aussi da ngay gis ku mel ne man la du ma yore dara de wax ju bari rek moom laay def de. loolu laa parce que dafa am ñoo xamante ni dundaluñu làmb waaye dañuy dundee làmb. loolu ci ñëpp la am du ci promoteur yi rek. ci fépp la am. am na biir CNG am na biir euh, euh, promoteur yi am na manager yi am na président yi am na entraîneur yi am na sax ci mbër yi waaw même biir mbër yi am na ci ñu nga xamante ni ñi tey ji dundaluñu làmb mais dañ koy euh, dañ dañ koy dunde ma jox la benn exemple démb ak bërki démb bu làmb masaana am mais mbër mi daan dimanche dina def tout ba ñëw ci làmb ji pourquoi léegi ñoom ku ci daan waxuma sax ku ci daan mais doo leen gis sax ci làmb ji ñu ñëw di seetaan si te lu ñu doon rek tey jii mbër a leen ko def lépp lu ñu doon rek mbër moo leen ko def ñu dem ba ci biir on les voit même plus ci yeneen galaay bu seen écurie di bëre sax doo leen fa gis boo xasee ba toll fenn fi daal yëkkati nga sa bopp ba ca kaw faaleetuloo kenn làmb li koy defaraat dafa bari man day xam naa ne bu nu organiser waatu làmb dana gën a suuf ndaxte lii di ñëw. muy MMA bii nga xamante ni bii kenn xamul lu mu doon ñu ko doon bañ ci àll bi euh, ci ci yeneen dëkk yi France mi ngi koy doog a pour quoi ñu bañoon ko pour ñun ñu indil ñu ko rek ñu bëgg ko accepter loolu dañ ci war a wax bu nu moytuwul sunu sport bii nga xamante ni bii tey jii état bi waroon na ci travailler ba nga xamante ni bii képp kuy jóge bitim réew comme man mii di wax ak yow nekk ci biir syndicat ñu may wërloo combat bu. ay tubaab war a ñëw pour le le muy dimanche bii di ñëw aw ko xaw ma fan la fan moo fi am combat dégg naa Bargny am combat te fii waroon na mën a am combat mais amul loolu noonu tey sa pose problème et pourtant à partir de la lutte man dama doon wax ne euh, dernier combat bi doon le combat royal normalement une semaine de festival moom lañ waroon doon am fii ci biir Sénégal ñun suñu xam-xam suñu xalaat yegg na foofu te nag nañu xaar l'AREELS AREELS moom mooy ki nga xamante ni kii dina révolutionner ëllëg la lutte. ñu defal ko làmb muy arène nationale yan jéego la ci làmb wara mën a def ba toll fi mu tolloon ci 2009 2010 2011. moom mooy ñu fiy bëre moom mooy ñu fiy bëre fan lañ daan bëre. stade Demba Diop ak Demba mais Léopold Senghor doo nga ëpp fii. fii moo ëpp Demba Diop am na nu muy demee suñ ko organiser fii moo gën mais nag dafa am lu nga xamante ne lii il va falloir que nag ñu waxtaan ci xool exactement l'arène c'est quoi mënuñu jël 32 milliards def ko ci làmb def ko ci def ko ci arène te doo accompagner arène bi dañu waroon a accompagner l'État doit accompagner les promoteurs l'État doit accompagner le CNG ñun day xam na ni sunu ministre bi dégloo làmb dana dellu fa mu fa mu nekkoon. parce que nag léeg-léeg li nga wax moom moo ci nekk am na ci ñu nga xamante ni ñi sol grand bu bu rëy taxaw ci télévision bi rek la seeni cote rek la seeni problème wala veste bu rafet ñëw wane sa bopp moom moo bari ci biir làmb ji mais les vrais acteurs de la lit qui cherchent à développer jéem a jëmale làmb ji kanam doo leen gis ci yenn télévision yi duñ leen sax invité barki démb maa ngi gis ñi ngi invité par exemple dans une télévision de la place j'ai vu des acteurs de la lutte ñu nga xamante ni ñi lu ñu doon tey ji lu ñu am tey jii làmb moo leen ko defal mais ñu toog naan dañuy défendre MMA est-ce que loolu c'est normal mal cadré par ces gens la jël benn nit bu nga xamante ni bii tey teg nañ ko devant la devant la télé mu wóor la ne kii nga ko booleel sur le plan intellectuel sur le plan beaucoup de choses kële moo ko ëpp xam ci loolu nga ñëw boole kook moom am na fu nga xamante ni fii da koy écraser parce que les gens dañuy yaakaar ne rek li moom mooy làmb ji te làmb ji ñu jàng ñoom ñoo ci nekk di ci liggéey loolu man maa la ko wax. borom xam yu mag a mag a mag a mag ñu nga xamante ni ñi tey ji waxuma sax làmb ji mais ku leen dénkoon Afrique sax ñu gérer ko waaw jàng ba ni ar xam mën mais malheureusement doy na waar daal. jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la président doon wax dugg na ci ay ponk yu am solo yoo xamante ni buñ ci ubbi rek ci bunt bi war nañ cee mën a doxal làmb euh, ñu ngi xamal ni waxtu bi ñu amoon ci waxtu jot na président xanaa ñu bàyyi la nga tàggoo rek. waaw may wax na rek euh, euh, damay bi gërëm vraiment tey jii buñ ko waxee buñ ko waxul yëpp le président de la république qui a érigé lu mu mënti demee cette arène la di gërëm le ministre des sports di gërëm Alioune Sarr di gërëm le promoteurs di gërëm les managers di gërëm euh, télévision yeeg rajo yi di leen gërëm yéen ñi parce que tey la ñu mënut a woon am ci yenn télévision yi yéen a ngi ñuy jox vraiment euh, euh, plateau buñ ko mën a waxee di gërëm nag waa ARELS ci liggéey bi nga xamante ni bii moom la ñu tàmbale bàyyiwuma kenn ku lim matal. képp kuy président euh, di responsable école ak écurie de lutte ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi lay sant et di la xamal ne la euh, jox nañ la sunu loxo wax na la ne la ñoo ngi seen ginnaaw ñoo ngi seen ginnaaw ñoo ngi seen kanam lépp loo leen bëgg rek incha allahu rabbi dinañ ci taxaw yéen it aussi li ngeen di def nii depuis que ngeen jël ko ni ma ko waxee ci commencement wu émission bi ou interview bi man day wasaare làmb xaw ma kan su ma sañoon da ngeen war a mën a doon nag la télévision privilégiée entre ñu ak yéen loolu daal bëggoon naa ko boo leen demee aussi ki nga xamante ni kii moom moo ko yore moo ko moom ngeen waxal ma ko ne ko bëgg naa ko seet si pour ñu xool naka moom la ñu war a mën a def ba ni ngeen bëgg a wasaare dootul doon dem ca stade ba rek indi ay combat mais comment développer la lutte sur le plan culturel sur le plan économique et sur le plan sur le plan ba nga xamante ni bi làmb ji dana doonaat la mu doonoon di def aussi appel au lutteurs yi nga xamante ni yi tey toll nañu ci benn stade bi léeg-léeg nañuy doxantu ci stade yi pour vraiment li ñu yore li leen defaloon démb ñu fay ci ñi nga xamante ni ñi ñoom ñoo leen ko defaloon jërëjëf président li mu wax rek mooy ki la abal euh, almet ba tax nga boyal bu la ñaanee xal boo goree war nga ko wax tibbal loolu mooy mbërul yi nga xamante ni ay champion lañ ci làmb ñu ñëw gestuwaat làmb di ñëw di taaral bis bi di taaral bisu xale yi wax ji am na solo lool wasaare làmb lépp loo nekk rek président wasaare làmb ma nga ca euh, mbokk yi jërëjëf noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqaliko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërëjëf président